Si dans la politique, il y a du bon et du mauvais, que seuls les hommes intègres qui peuvent faire la dichotomie entre le bien et le mal fassent la politique. Pour vous dire simplement que vous êtes très bien placés pour faire la politique. S'il y avait une et une seule personne qui devez faire la politique, c'est vous, puisque le président du parti, Serigne Moustapha Sy, a fait de vous de véritables citoyens. L'exercice d'un mandat politique doit être perçu comme un service à la collectivité et non comme un outil de promotion personnelle. Celui qui l'exerce il doit accepter le temps de sa mission d'abandonner ses intérêts personnels pour représenter et défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu. Au pur du président Serigne Moustapha le politique est un ambassadeur de la vertu, un soldat de l'éthique et de la rigueur, en un mot, un serviteur. En tant que serviteur, il sert à la fois les citoyens, la société, l'État et la nation, et il fait passer le bien commun avant ses intérêts personnels. Notre pays a besoin d'hommes d'État et non d'hommes politiques qui s'adonnent au Ndjoj En effet, Ce qui distingue l'homme politique et l'homme d'État, c'est que l'homme d'État s'inscrit en permanence dans l'action et dans la responsabilité, pendant que l'homme politique cherche à gagner les prochaines élections, l'homme d'État songe à l'intérêt des prochaines générations. L'homme d'État se fixe des lignes rouges parce qu'il ait des valeurs telles que la solidarité, la fraternité, la démocratie, la liberté, la paix qui lui paraissent impossibles à enfreindre, quelles que soient les circonstances et quels que soient les enjeux. Pour l'homme politique, gérer un État, ce n'est pas fédérer les citoyens dans leur diversité, grâce au consensus autour d'un idéal politique commun mais c'est participer au spectacle d'une lutte perpétuelle pour le pouvoir, un pouvoir politique dont toute la finalité se résume à en savoir jouir. Une jouissance de biens mal acquis qui s'aborde l'idée démocratique et le développement en érige un modèle de la cupidité, l'illégalité et le mensonge Ils sont souvent pour corollaire la dictature, le clientélisme et la répression. Ils posent la corruption comme clé de la réussite politique ou économique, ruinant souvent les espoirs de démocratisation, même des plus téméraires. Le pur s'active dans cette dynamique de former des hommes d'État dont l'action politique est basée sur des valeurs. Le citoyen est au début et à la fin de l'action politique. L'intérêt général sera placé au cœur de l'action politique, qui doit reposer sur un certain nombre de principes. L'intégrité, l'exemplarité, l'objectivité, le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, la probité, le sens de la gestion rigoureuse des deniers publics. Le pur va revisiter les paradigmes de la perception politique pour fermer définitivement ce cycle ouvert depuis 2012, vous comprendrez mon regard, qui attend déshumaniser notre société en ayant recollé les chaînes de la servitude, brisée autant par le régime de la première alternance. pour ce faire, Le PUR va redéfinir l'engagement politique qui est une conduite qui implique de croire que nous pouvons contribuer à changer les choses. Il est contraire à la fatalité. L'engagement politique ne doit plus avoir comme seul sous-bassement des intérêts crypto mais une conviction profonde d'être un serviteur au service de son peuple. la transhumance. La n'aura plus de place dans le champ politique. Elle sera annihilée par la conviction, l'honneur, par nos valeurs purement sénégalaises, par le jom, le fulla, le faïda, le kersa, le sutura, le ngor et le mougne. Une politique pure sera une politique inclusive consacrée à un désir ardent et sincère de participer à l'élévation du confort et du bien-être de toute la communauté. Cette politique pure devra nécessairement impliquer la, la, une haute facture morale, une assaise continuelle qui convoque la probité, la rigueur et le sens de l'honneur. vous comprendrez mon hésitation j'ai pas l'habitude de lire des discours waaye lu ñu leen mën a wax yéen militant wu pur yéen sympathisant wu pur ñu ngi leen di wax ne leen yéen a ëpp chance ci Sénégal yéen ñi nga xamante ne nii da ngeen am kilifa bu leen di teg ci yoonu siratal mustaqim da am kilifa bu tax sunu borom su leen gisee ngeen di jëf di dox xolam sedd ngeen am kilifa dama demoon euh, barke démb Rufisque Oustaz Pape di wax ne Serigne Moustapha daf ñu génne ci jungle bi teg ñu ci seen bi ki la jële ci genre teg la ci seen mënuloo ko fay donc li ñu leen di ñaan ngeen taxaw comme ni mu taxawee di jàppale askanam di jàppale réewam ndax amuñu kudul moom mu waññeeku nekk seen président wu parti donc amuñu fayam dañuy def lu dul di ko ñaanal mënuñu ko wax merci bu ñu amoon moo bu ëpp merci danañ ko ko wax waaye na xam ni lépp lu des ci suñu dund ñu ngi nekk à sa disposition bu ne gauche la ñu ne gauche la bu ne droite la ñu ne droite la bu ne stop ñu ne jàdd comme benn mur ñu ngi leen di remercier di leen félicité ci rassemblement bi am na solo waaye comme li tubaab di wax c'est le début du commencement lu leen taxawoon gën leen taxaw lu leen jàppoon gën leen jàpp asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi maa ngi fàtte maa ngi fàtte dama amoon yéene bi may jël kàddu wax ci suñu ñaari camarades yooyu nekk rëbës te ñu bàyyi leen rëbës illégalement bàyyi leen rëbës ci jaay doole ñu ngi leen di wax ne leen fàttewuñu leen te comme ni ko Pape Gora waxe sànq yéen a ngi fii ak ñun te boole ci di remercier di encourager di féliciter les deux femmes de Massata Mame ak Awa Ndiaye di remercier di encourager di féliciter les deux femmes de Mamadou muy Ndeye Penda Gueye ak Nagoy Niang donc loolu la bañoon fàtte ñu ngi leen di remercier ci seen présence merci beaucoup merci merci monsieur Cheikh Tidiane Youm donc guddi na ba pare dañuy jeexal mais dafa am ñoom dañ doon laajte nee na ñoom amaguñu ay t-shirt donc t-shirt yi ci sortie yi ñiy jaay t-shirt yi ñu ngi foofu ku nekk balaa ngay ñibbi nga fexe am t-shirt parce que cinq ans d'existence ça se célèbre donc ñi amagul t-shirt nañu fexe ñu am ko alors ñu jeexal programme bi waaye balaa ñuy jox sang bi. dañu bëggoon femme pure yi sang bi bi ñuy waajal anniversaire bi ñoom dañu wax ni ni ñu engagé woon ci costion bi ñoom ñoo engagé pour defaraat gâteau d'anniversaire bi te gâteau d'anniversaire bi zawo jàmm sama papier yi zawo jàmm sama papier yi gâteau d'anniversaire bi papier yi ma la joxoon léegi alors li tax may laaj papier yi mooy gâteau d' bi ñaari njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ñoom ñoo ko defar ñaari njaboot yoo xam ni loolu moom mooy seen domaine nekk ci femme pure muy soxna Asi alors réalisé par Asi Kitchou et maison du goût dirigée par soxna Asiatou Niang Diallo et soxna Safiatou Dem Fall donc yéen ñi nga xam ni yéen a njabootu góor gi heure bu ngeen soxlaa ay gato mun ngeen leen contacter ci 77 710 31 71 wala ngeen contacter leen ci 78 157 56 06 alors ñoo defar gato bii ngeen di gis ñoom ñaar ñoo nekk nii ngeen tàcc leen bu baax a baax a baax a baax.